mu doon visite de courtoisie bu président bi ñu fal ci élection yi ñu génn di Bassirou Diomaye Diakhar fay amal fii ci makkaanu njiitu réew mi mu ñëw nemmeeku si président Macky Sall. ginnaaw yi. ñaari njiit yi waxtaane lu yàgg lu ñeel dossier yu mag yi ci wàllu état yi di xaar président Bassirou Diomaye fay leneen lu ñu waxtaane ñeel cérémonie de prestation de serment ak passation de pouvoir di jokkalante nguur gi te ñu fas yéene ko amal ñaari fan ci weeru avril ba ñu ci pare nag njiitu réew mi wonaleek président Bassirou Diomaye Faye mi ko nar a wutu ci bopp réew mi makkaan gi di palais ak cabinet du chef de l'État